la dalal sa kër euh, ci ziar bi nga xam ni mooy ziar kër maam Khalifa Niass nga nekk suñu xarit suñu wëllëre nekk it koo xam ne dañoo bokk tolluwaay ci réew mi waaye bokk lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy xeex lépp maam di njëriñu Sénégal dama doon wax rek laa lay wax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën a foor ñëpp su demee ba tuddee ko maj ñun dof Euh, fa tabaarakallaahu maanaam euh, bëggoon nañoo saboote yoon wa waaye kuy aw ci yoon te saboote wuñ la sëñ Tuubaa neen tiital ci sa bopp ndax euh, ku baax ku ne boo jógee dañ la dugal ci ay ay caaxaan ak ay kàcc ak ay lu ne waaye yàlla ma toujours mooy dëggal boppam bu la xasee ba sol ci xoolu nit ñi or boo or boo jógee rek nit ñi nit ñi wane ne jug nga fii nag kër gi nag moom doo fi gan bari nga fiy xarit bari fi wóllëre bari fi soppe Euh, ziar bi fu mu la mën di fekk ci réew mi da dagg sa yitte ñëw mm-hmm. euh, ñu bokk aussi tamit euh, dëkk bu ñu dëkk muy Kaolack mm-hmm. d'abord dama naan Sénégal yëpp neex na ma waaye lu ma mënti am fanaan ci Kaolack moom ko gënal yow it même chose suñu maam it képp ku ci def sa taxement li ngay wax bu ma génneewut àdduna ci réew mi sax nañu ma suul ci Kaolack mm-hmm. kon Kaolack gi Kaolack kuñ fonk la te nag ku ñu fonk la Kaolack ñu fonk la ndax bu Kaolack avancé suñ ndam la suñu avancement la. Euh, ñu ngi lay dalal ci sa kër di la ubbil suñu xol di la wax ne la am nga fi ay appartement ay yoo xam ne benn caabi rek la te yow yaa ko moom. macha allah macha allah waaw ndax euh, fa tabaarakallaahu daal maanaam teg nañ la fu kawe. Mm-hmm. Euh, yaakaar naa maanaam li ngay li ngay génn bëriwul ndax ñàkk jot ak ni réew mi jaxasoo ñëpp xam nañ jaxasoo bi mm-hmm. waaye it fu la. xew-xewu yu mel nii fekk sa tànk matee ko fay dem kon ñu ngi lay dalal di la wax ne bisimilah marhaban wa ahlan wa sahlan di la ñaanal aussi tamit yàlla bàyyi la fi ngay xeexal société bi waaye nag ci biir bàyyi bi ngay xeexal société bi nag yàlla yàlla nañu yàlla dimbale moom àpp nag ndax xeex du continuer waaw ndax képp kuy xeex dafa am lu tax ngay xeex parce que yonent bi ba mu daan xeex diine lislaam taxaw ba di taxawee ba mu am jàmm xeexatut am na indépendant di julli nu ko neexee di aji nu ko neexee di toog fu ko neex di waxee nu di waxee noo xam ne yàlla moo ko wax looyee. ñun na suñu xeex bi yëpp loolu la rek buñ buñ daxee ba gis changement wu réew mi. ñëpp yem ci ñëpp yem ci eh, atte du am ku mu am ndey ak ku mu amul ndey sëriñ bi am xorriya mën a waar taalibe mi wax dëgg yoo xam ne dana ko wax noo dana ko waxee noo xam ne benn pression duñ ko ci duñ ko ko ci teg. ko ci indil benn détail. am njiit loo xam ne aussi tamit li xaar ci sénégalais yëpp gis nañ ko ci moom. li may wax toujours moom laay wax tey dama naan man euh, foofu laay tëjee ci nuyo bi ànduma ak Ousmane Sonko wala keneen wala keneen pour njëriñam wala sama njëriñ dañu ànd pour njëriñu Sénégal bu ñu gisul lu bu ñu gisul loo xam ne changement wu réew mi la it ni ñu taxawee ci keneen lu ko raw la ñuy taxawee ci moom parce que suñu maam Sid Lamine loolu la gëmoon te ñun loolu lañ gëm te ñun kër Xalifa Ñas loolu lañ gëm parce que ñun doxuñ ci doxuñ ci injustice doxuñ ci ci wax luñ gëmut ñun luñ gëmut duñ ca dugg luñ gëm la ñuy dugg luñ xas ne baax na loola baax na lu ñu xas ne baaxut it jàmbar nañ ko ba jàpp ne baaxut ñu xool ci askan bi ñu ne baaxut parce que ñun ay taalibe baykat lañu am ñoom lañu ëppale te baykat yi toujours ci ci ci ci safaan la ñuy dund. Mm-hmm. waaw imagine ñu jën ñu jaayee la kilo gerte mille et quelque. nga bay ba nawet wàcc nga jaayee ko juróom fukk te ñun la ko jaayee woon mille et quelque. Mm-hmm. amaana dañ la koy fay dagg daggee la ko kon ñun bu ñu amee taalibe yu mel noonu taxawuñ seen wet kaasal leen. daanaka bu ëllëgee yomal xiyam yàlla dana layoog ñun laaj ñu ñii lu ñu leen yaakaare woon ana fu ngeen fu ngeen fu ngeen leen dugal lii kese moo waral suñ suñ suñ jaxasoo bi li ngay xeex ma koy xeex ñu dox daje nga am loo gis ci man ma am lu ma gis ci yow lu ko raw ñi ngay ñëwee fiit it maa ngi ko seedalee nit ñi ne sa kër amu fa sens interdit waaw damay jékki-jékki wala foo nekk nga ne ma maa ngi maa ngi kër wala damaa génn demal ma madam mu ngi fa waaw weer koor bi yëg si mujj bii passé sa kër laa ndogoo taar macha allah nga maanaam nga fàtte lépp di vingt madame defal li defal li jëndal li defal loolu teraanga la teraanga jooju nag du yàqu ci ñun te du yàqu ci yow incha allah te fépp foo ne ñun ñang ci waaw lépp loo ne ñun ñang ci incha allah bi xawlilaay waxuuti bisimilah ci sa kër ñas ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar di amaat kontaante lool lool yàlla bàyyiwaat ñu fi ba ñu fekk ziare bi di bég saa su nekk ci saa su ma la gisee ak saa suma la déggee nga nekk koo xamante ni tey mën naa seede ci yow lenn sa bëggum Sénégal ak sa bëggum Kaolack ndax tey ñépp xam nañ ak tolluwaayu réew mi fi far neexee tey jii far fi mu gën a neexee mooy ci côté ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dénk réew mi soo faree ci ñoom. kenn du la fenal kenn du la sosal kenn du la piège kenn du la tëj kaso ba pare tekki dañ lay jox koppar yu dul jeex nga bàyyi fa loolu lépp di sëtu maam xalifa ànd ak say mag ak yi nga bokkal baay ak yi nga bokkal maam ak yi nga bokkal lépp bàyyi fa loolu lépp taxawee taxawaayu nu maam xalifa ndax ñëpp xam nañ maam xalifa maam xalifa musul sonn ci lu dul askan maam xalifa musul lekk te askanam wala njabootam lekkuñu maam xalifa lépp luñ ko doon dégg ci jihaat la te jihaat boobu boppam taxutoon askanam a taxoon tey ji bu ñu gisee ay sëtam nekk ay ndaw teel a comprendre loolu taxawee taxawin boobu ñun duñu def lu dul surtout yàlla dimbale ñu may ñu chance ñu bokk ak ñoom dëkk te soriantoo wuñ ñu def lu dul jaxasoog ñoom jaxasoo goo xamante ni nag duñ ci nëbb lenn dañuy taxaw fësal ko ku mu neex ah nga santee ko yàlla ku mu naqadi nga xam ni lu méttee la dal nga muñ ba keroog yàlla di la dimbali fóot sa xol nga far fi nga xamante ni tey jii ku fa far ñu tam la dëmb wala ñu lay rëbb wala di la recherche mais defuloo ko lenn lu dul dafa am loo gis am loo gëm te xam naa ci dara du fukki dërëm boo xamante ni ca fa nga far tey da ko ciy am au contraire da ngay yëkkati say koppar di ca def loolu tamit xam naa ci lu baree baree bari di dégg lu ne it teewul ci nga gën a jàpp ci nga gën a téye te loolu defaloo ko lu dul askan wi defaloo ko lu dul askan wi defaloo ko lu dul bés bu Sénégal soppi ko comme ni nga ko waxee Kaolack gis ci boppam te Sénégal nag 1960 ba tey mu yàggal nekk ci ay loxo yu nit yoo xamante ni mën naa ne Kaolack mosu ci gis boppam mm-hmm. te Kaolack yàlla def ñu képp kuy premier ministre bu weesoo Idrissa Seck yaakaar naa euh, Kaolack waa nga luy sa val joojo Njaay bi tey kii di njiitu réew mi jàngee na fa donc képp kuy autorité wala lu ëpp ci autorité sénégalais yi jaar nañu Kaolack buñ fi buñ fi dëkkulit jaar nañ fi jàngee fii ci lycée Valdiodio Ndiaye mais Kaolack nekk dëkk bi gën a dellu ginnaaw ci dëkk yi ndax ñiy représenté Kaolack ñu leen di wooyee les autorités politiques gëmuñu Kaolack musuñu gëm Kaolack faalewuñu Kaolack lijjantiwuñu Kaolack toppatoowuñu Kaolack bañ nañ ko ba ku ci commencé sax jekku da ngay gedd dëkk bi dem am say immeuble ak say étage feneen kenn aayewu ko waaye ñu gersu dëkk bi defar dëkk bi defar doom doomi waa dëkk bi te loolu nag ñu ngi ci woo ndawi Kaolack yi ñi nga xamante ni tey jii nii su ñëppi sàqee kon kat moo fiy des te pour ñu bañ tamit euh, euh, sàqi googu euh, dal ñu bañ a dal suñuy doom il faut que ñun ñu taxaw ba fexe Kaolack am loo xamante ni bu nit ñi xëyee dinañ ci mën a téye pour mën a loolu mën leen a téye ci dëkk bi loolu xeexu ndaw ñi la donc ñu ciy woo ndaw ñëpp di leen wax ni ci kàttanu yàlla ak mbaaxam buñ ko gëmee dëggal suñu bopp yàlla dina ko def ziyaara ren bi nag mu nekk ziyaara bu spécial ci ziyaar yi parce que ziyaara maam xalifa bi saa su nekk rek li ma ci wax maam xalifa liggéey na loo xamante ni ku ko nar a puukare wala ku ko nar a waxal lu mu waxul a ah, di nga xam ni nitu yàlla dëgg waliwu yàlla kamal la woon ah ndax gis nañ ni fi demee ci vey beeg bés beeg yooyu yëpp mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla senegal yëpp naqarlu nañ ko waaye ñu gis nga taxaw ci yow ak sa mag yeeg sa rakk yi ak ñi nga xamante ni dara ñoru leen lu dul maam xalifa ak ak ak ak bi ak diine islaam ngeen def ci fulla ju mat sëkk ba tey jii kenn yàqul deru maam xalifa wala kenn yàqul deru waa kër maam xalifa guy nag dina jur xetax te ku jël sa bopp roof ko ci getax mbaam yey ko su fekkente ni danga nekk doomu euh, sëtu maam xalifa muy walliwu bu mag musul faale buur musul topp ci ginnaaw buur maam xalifa defal la lu ne yow nga ne cër boobu tey da nga ko xeeb ba mu jaral na ngay toppi buur tooxal sa bopp kese ngay def ñëwuñ fi nag pour wax wala di indexé wala di joxoñ waaye daal dañuy waxaat ni muy kër maam xalifa muy kër Cheikh Cheikh Ibrahim muy kër maam Borom Touba muy Tiwaawoon muy Njaasaan muy Laayeen muy fépp ci Sénégal fi nga xamante ni ak waa jàngu bi këri diina lañ ñoom lañu yaakaar nañu xam ni lu ñu yor moo gën a foor téeméeri junne yoon euh, nguurug tey ak nguurug ëllëg ak nguur gi fi nekkoon ak nguur gi fi ñëw ndax avant ñuy juddu lañ lañ euh, la taxawal seen bopp samp ko nguur gu nekk jaar na fi dem ba fi ba fi ba fi ba fi ba tarixa yi ba fi diine gi ba fi askan wi kon na nit ñi xam ni nguur loo xamante ni la bu bëree ba bari ci ñaari mandat yam nguur bu yàggee ba yàgg du ëpp douze ans loolu kenn waru ko mu kenn warul mën a jël li nga xamante ni mooy tarixa cheikh wala tarixa Serigne Touba wala bu xaadriya di ko jël naan da nga koy suufeel di ko weccoo ak loolu surtout nguuru léegi yi nga xamante ni nekkuñ ci dara lu dul tappale ak noot askan lañuy jël di leen ko jox ak nu mën a toll jàpp leen ni ay dereti doomu aadama yu bëri lañ jël jox leen ko di ko aro ngeen koy naan wala ngeen koy sol wala ngeen koy sangoo wala ngeen ciy taal climatiseur Macky Sall amul euh, milliard bu mu maye Antoine jom amul milliard bu mu maye keneen ak keneen amuñu ay millions yu ñu maye 2011 question la bu may laaj këru diine yëpp. ndax Macky Sall mosoon na yëkkati cinq millions mayee ko fa mosul am il fal yi ñu dénk ko la contribuable sénégalais muy jël ci li nga xamante ni xam na ni ñun loolu la ñu gëm muy suñu kër diine yi su seen su su gàmm yi jotee wala su màggal yi jotee ñuy jël ci le contribuable sénégalais di ko fa yóbbu pour ndax sénégalais yi dañ fay daje di ut yàlla pour ñu xool nan lañu nan lañu nekkee ci ay conditions yu baax pour gars yi xamee ko noonu comprendre ko noonu alal jooju ñuy dugal ci kër diine yi suñu alal la te ak nu mu mën a toll ñun sénégalais yi ñoo ko moom li la koy li la koy li la koy firndeel mooy maa ngi dégg nga koy wax tey jii xalif bii nii li mu am ci ay taalibe yoo xamante ni bu taxawoon ne dama bëgg cent million balaa jant bee soow mu am ko ak kër diine boo dem xalif bu taxaw ne dama bëgg cent millions balaa jant bee soow am ko kon lan mooy pour ay lan mooy ay million ki fukki millions ki ñaar fukki millions nañu delloo si suñu xel nañu xam ni suñu seen maam yi duñu moroomu mbaam xaal yi nii dañ fi liggéey loo xamante ni sa waay looloo nekk di wéy ba léegi looloo nekk di ñoŋ ba léegi kon bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu wàcc seen ànd Macky Sall mii day dem yoonam day dem yoonam te wallaahil azim ku amul basara ba moytuwoo ko dina toox tooxaaleel la kon na nit ñi tey def ci ndànk waxuñu waxuñu ànd leen ak kii wala ànd leen ak kële mais daal li nga xamante ni tey jii nii mu ngi xew ñaaw na naqari na métti na métti na ñu ñun taalibe yi métti na sët yi métti na umma bi yëpp kon te lenn waralu ko lu dul ay manipulation yuy jóge ci Macky Sall ak waa këram waaye tamit na nit ñi am fulla bañ a nangu manipulation googu saa boo xëyee dégg luy tax nga dar sa gémmiñ saa boo xëyee dégg ñaawteef buy tax tax nga dar sa gémmiñ ba kañ ah, te loo xamante ni yàggatul ay weer kese ki des lii dëgg dëgg dëgg mooy tey jii ñun suñu kilifa yi nga xamante ni bu ñu bu ñu bu ñu bu xiifee ñoom la ñuy xalaat bu ñu sonnee ñoom la ñuy xalaat bu ñu kontaanee ñoom la ñuy xalaat ñu ngi leen di xaar ci leen kese mooy kii fi nekk nii tey di di président de la république di Macky Sall ñu taqal ko caq caq bi ñaari yoon mu waat te ñëpp xam nañ ni takk bi boo ko takkee ñaari yoon waroon ko takkaat ñetti yoon ñu wax ak moom ne ko takk bi pare nga ci takk ko ci loolu lañ leen di xar ñu dimbali ñu lillaahi wa suuli bi sabili la ndax li tax ñuy waxee nii mooy que ni pesum kanam borom a koy fajal boppam ndax li tax ñu leen di ñun dañ leen a jox cër bëgg leen fonk leen bës buñ ñu seetaanee bañ yegg fañ fa fa nga xamante ni yegg nañ fa a ah dinañ ko lijjantil suñu bopp de. ndax dama koy faral di wax saa su ne lu ñu mayul Abdoulaye Wade bu benn politicien fii ci réew mi am yaakaar ni dinañ la ko may ndax abdulaayu Wade li may wax ni sénégalais yëpp xam nañ ko 2012 biñ ko naan doo am ñetteeli mandat desoon na ci xolu sénégalais yu baree baree bari newoon na ci xolu sénégalais yu baree baree baree bari kenn jéppiwu ko woon it waaye juste que ni dafa am loo xamante ni réew bu bëggee jëm kanam il faut mu am lu ñuy wooyee tàmbali ak jeexal dañ koy organiser France gënuñ États-Unis gënuñu yeneen dëkk yooyu yëpp gënuñ ñu organiser seen dëkk ay doomi aadama yoo xamante ni dañ naan sax ñun plus bi ñu am mooy ñun yàlla def ñu dimbali ñu am diine ñu am Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am ay mag ñu baax kon ñun organiser dëkk ci dëkk ak ci tàmbali ak njeexital mais ci ñun la war a gën a yomb lan moo tax tubaab yi di ko réussir ñun mënuñu ko réussir c'est quoi problème on doit se poser question problème bi du Macky Sall du usmaan Sonko du ma Mademba ma sàmba problème bi mooy Sénégal du titre foncier wu kenn problème bi mooy Sénégal dëkk la boo xamante ni comme dëkk yëpp dafa am nu muy doxee ak nu muy taxawee ni muy doxee ak ni muy taxawee mooy ci organisation président de la république fii désormais Sénégal kenn dootu ko doon ñetti yoon wax ji dama koy wax pour ren mu jëm ci ay yeneen at yi ñëw ndax suñu doom yi dinañ ko dinañ ko seet dinañ ko seetaani ji ëllëg waaye daal ñun suñu génération nañu taxaw temb ba nga xamante ni yàlla dimbali nañu suturaal ñu ci biñ taxawee ne Ablaye Wade doo fi am ñetteelu mandat yàlla dégg ñu may ñu ci ndam kon je pense que ni suñu taxawaatee ak kii fi nekk ne ko doo fi am ñetteelu mandat ak ca Ablaye Wade bañ ko koy def sax dese ah, dese woon na atu yu bari waaye kii moom dafa amul benn atu boo xamante ni war na mun a tax mu am ñetteelu mandat ci suñu kaw ñas ñu ngi lay ziar di jéggaluwaat ci kàddu yi di kontaanaat bu baax di ziar sa mag yi sa magi daara yi sa xalifa yi ma fi fekk ak sa mbokk yi di ziar kullu kuy yeewoo Kaolack ak lew na Niassène di ziar xalifa bi di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi mu yàgg lool te wér te di ñaanal képp kuy Kaolack waa ak sénégalais jàngeen jëf. <laughs>